egsi naa Qatar ci jàmm yéen lions yi yéen lay waxal 17 millions de sénégalais yëpp ak leen di xaar man nag yabu ñu ma yab goo xam ni lions dañuy xoole man li classé wuñ ma ma géewu ma um nga ñëw yaa ku ma ko def par kenn yabu ma man kenn yabu ma lions yi dañoo wut si ndam yàlla ma yàlla mayeen ko man damaa liggéey si man ñii ma fi indi ñii ñii ma fi indi dugal ma ci ay situation yu bee <laughs> may liggéey su ko waxee ba sonn naan coca bii bu dee bëgg naa suukar bu dee bëgguma suukar ma naan kokaa bii waaw kay léegi nag duma wax nag ñaata lañ ma fay pour ma ñëw fii moom baa xamee catu léegi lion yi football leen bu ñu leen gañee man dinaa rus mais benn yoon lañ ma koy ji ñaari yoon ku ma jiñ ma fayu ñëw ma pour kenn ñi laa jiwoon ñi UBS <laughs> les industries des boissons du Sénégal jërëjëf waay Coca egsi naa Qatar ci jàmm egsi naa Qatar ci jàmm yéen lions yi yéen lay waxal 17 millions de sénégalais yëpp ak leen di xaar man nag yabu ñu ma yab goo xam ni lions dañuy xoole man li classé wuñ ma ma géewu ma nga ñëw yaa ku ma ko def par kenn yabu ma man kenn yabu ma dañoo wut si ndam yàlla na yàlla ma mayeen ko man dama liggéey si man ñii ma fi indi ñii ñii ñoo fi indi. ñii ñoo ma fi indi dugal ma ci ay situation yu bee may liggéey su ma waxee ba sonn naan coca bii bu dee bëgg naa suukar bu dee bëgguma suukar ma naan kokaa bii waaw kay léegi nag dama wax nag ñaata lañ ma fay pour ma ñëw fii moom baa xamee catu léegi lion yi football leen bu ñu leen man dinaa rus mais benn yoon lañ ma koy ji ñaari yoon ku ma jiñ ma fayu ñëw ma pour kenn ñi laa jiwoon ñi UBS <laughs> les industries des boissons du Sénégal jërëjëf waay Coca. egsi naa Qatar ci jàmm.